ku jënd daaba gis ca li ñuy wax ak tëj ji ca wawa mbaa muy fakka salu mel ni bu dox di tërëf ak def li mel noonu mbaa muy xoox di nox da ko bañ di jotu gannaaw mën naa génn ci jënd ga wala mëntu sëf li nga xam ne moom la ñu baaxoo sëf ci daaba ju mel ni moom daaba bu mel ni moom daal la ñu baaxoo sëf moom mi mënu ko loolu kon sikk la buñ ko ñaasee ñaas koo xam ne amul solo du wàññi njëgg wàññi dara itam ci jëmm ja mel ne niñ baaxoo def rek bu amee jur daal di koy ñaas maanaam gënuñ cee xàmmee loolu wàññiwu ci dara buñ ko jàppee sikk soo xam ne ku ko jënd day tax mu daal di mën a xàcc waaye nag bu fekkee ñaas ga dana tax la war a jar du ko mën a jarati wala wàññi na taar ba mbaa wàññi na bind ga kon sikk la bu jëndee ab jaam itam ñu koy tuumaal ci ne daa sàccoon mbaa daa siifoon mbaa daa nangoon alal jàmbur ci doole waaw bañ ko toppee nag loola set na ca wëcc dara amu ca kon moom mi ko jëndoon du sañ a xàcc ne ki ñu gis ne sàcc gi loolu wax kenn na ko def waaye du moom mbaa ñu waxoon ni moom la sàcc far kenn sàcc ko lu may nag lañ ko tuumaaloon ni moo ko sàcc mbaa moo ko siif moom ci dëgg-dëgg defu ko waaye nag dañ koo xam muy jëmm joo xam ne dafa doy waar lool siiwee ak dëng kon nag ku jënd te xamoo ko woon da nga mën a xàcc ba tey bant yi wal mooy bant yoo xam daa am ay gunóor ca dugg ba biir bi am sunguf su cay génne mu ne biir bi day funux mu ne nag loo xam ne ki koy jënd moo ki koy jaay ñoo ci yema képp la ciy sikk duñ ko mën a xam lu may ñu xar ko mbaa ñu tàjji ko maanaam daal buñ ko soppee ba noppi la ñu door a xam ne sikk si am na ci waaye ki jaay ki jënd ñoo moo ci umpale nangal ca biir mel ne bu fekkee ne xeet doom yi mel na li ñuy wax yomb daan am bu dee yomb bu weex dis ko mën a togg dis ko lekk bu fekkee ne mënis ta xàmmee yomb ja weex ak ja leet ku ko jënd itam gannaaw ba nga ko xaree nag fekk mu waxit da ngay muñu rek wala bu dee xaal mënis ta xàmmee ñor na ba xong ba neex wala agul ci xong ba neex te nga mënu koo xàmmee lu may rek nga jënd ko ba xar ko kon koo jënd ba xar ko itam da ngay muñu rek waaye doo ko sañu xàcc lu may nag ki jënd daa waxoon kii jaay na ko su ma ko xaree mbaa su ma ko tàjjee mbaa su ma ko seetee te melul li nga xam ne moom la baaxoo mel dama la koy delloo nga delloo ma saal njëg daa sartanteeg moom loola kon sart roobee mooy wéy su melul na war a mel rek mu sañ a xàcc daa bëgg wax ne aji jënd ji buñ ko nee sañu laa xàcc ndax lii amul solo nga xam ne kon loolee kenn du ko ci jox dara mooy kenn du seet lu mu toll ci njëg ñu koy delloo jaaykat bi itam bu jëndkat bi sartanteeg moom ne ko su melul nangam day dama la koy delloo bañ juboo ca su melut noonu ba mu delloo ko itam xar gam ko xar ci misaal door a xam ne melut na war a mel du tax mu wax nga ko faaw nga fay ma ci nangam mbaa dara ndegam nee na ko woon moom su ma ko tàjjee mbaa su ma ko xaree te melut na war a mel dañuy sartonte ma delloo la ko nga delloo ma sal njëkk bañ jubee ca loola toj gam ko toj mbaa xar gam ko xar mbaa ubbi gam ko ubbi du tax ñu topp ko ci dara moom aji jënd ja ba doon nag lu ñu mën a xàmmee baax naam baaxut laata ñu koy ubbi mbaa tàjji mel ne nen nen nee nañu am na lu ñuy xàmmee baax naam baaxut njëkk ñu koy toj moom nen ba kon day amee àtte boppam ku jënd nen toj ko fekk mu nëb nga xam ne moom daal te mënu koo lekk kon borom da koy delloo njëgg te moom dara du ko ca wax moo xam jaaykat ba xamoon na ne nen bi yàqu na mbaa xamu ko woon ndegam moom toj na nen bi te ba mu ko jaayee fa saasa baaxut dañ koy sànni rek kon na ko jaaykat ba delloo njëgam bu fekkee nag ba mu tojee nen ba am na sikk man dafa kooj nen bi daa kooj waaye teewul mënees na koo lekk ba tey kon bu fekkee jaaykat ba xamoon na ko da koo ko nëbboon rek ba tey kon da koy delloo mu delloo ko njëgam ci dara du ko ci war bu fekkoon ne jaaykat ba xamutoon nen bi kooj na waaye jëndkat bi itam jotu koo toj kon da koy delloo rek ba tey mu delloo ko njëgam bu ko xasee toj nag nen bi daa kooj jaaykat ba xamu ko woon jëndkat bi itam jot na koo toj waaye gis nga ne ba tey moom mënees na koo jariñoo kon bu ko neexee delloo nen ba waaye kon da koy fayaale toj gam ko toj su fekkoon ne nag nen boobu kooj moom mi ko jënd toj na ko ba far ko toggeeg diw xam ne moom daal mënees koo delloo ci moom kon dañuy seet nen bu koojut lu mu war a jar ak nen bu kooj lu mu war a jar daañu ëppante njëg su boobaa nag ñu seet la nen bu koojut ëppee nen bu kooj ci njëg ñu delloo ko ki doon jënd mel ne bu ñu nee nen bu kooj moom juróomi dërëm lay jar nen boo xam ne koojut moom fukk lay jar te moom da ko ko jaayoon mel ne nen bi koojut ba mu fayeen ko fukk kon kooku day téye nen bi noonu rek tam delloo ko juróom waaye nag bu jëndee nen bi ba téye ko ay fan ba mu ko tojee nag gis ne baaxul mbaa sikk na nag du mën a xàcc di delloo nen ba ndax boo demee la ca xew gannaaw ba ko jëndee ca fan yooyu la ca xew ku jënd këru fekk ca sikk soo xam ne amul solo mel ni am ca escalier boo xam ne am sikk wala am ca balcon yi bu daanu ak xeet sikk yi nga xam daal mu amul solo yow mën naa defar ku jënd kër fekk ca lu mel noonu day muñ rek waaye du tax mu sañ a xàcc ngir loola te it ñu wax jaay ko ba ne ko xoolal li ci sikk li muy néew néew nga delloo kooku ci njëg ga dafa tudd kër rek waaye lu mel ne hôtel ak ak sangukaay ak puur ak yi jàpp ne yi mel noonu am toj toj bu ndaw rek wala escalier bu damm rek wala balcon brot xeet yi demee noonu daal amul solo ba muy jar ñu koy topp naa ko dañuy dindi njaay meeg nangam ak nangam ak na la delloo nangam ak nangam ndegam daal amul solo te yàgg nañ koo gis muy am ci suuf ak lu ca tax moom dañ koy bàyyi noonu rek. mais nag bu jëndee kër fekk ca sikk soo xam ne am na solo waaye du lool mel ni am ca miir boo xam ne am na toj toj mbaa xar-xar waaye nekkul ca kanam kër gi nga xam ne boo nee jàkk daal di koy séen feneen la féete te it noonee miir ba xare mbaa noonee mu tojee xam ne lu tax miir baa daanu du yàq dara ci kër ga kon daal xar-xaru miir mbaa toj toju lu bokk ci tabax ba loo xam ne xaw naa am solo nii rek waaye nekkul ca kanam kër gi nga xam ne boo nee jàkk daal di koy séen te it mënees na koo defar nañu seet lu tolloog moom ñu delloo ko ko ca njëgg moom mi nga xam ne moo jënd waaye du tax nag mu sañ a xàcc bu fekkoon ne nag nee na toj toj ba ca miir ba mbaa xar-xar ba ca tabax ba daa nekk ca kanam mbaa boog nekkul ca kanam waaye bâtiment ba mbaa miir ba mën na caa jaare daanu mu ne dañ koy jàppe kon sikku sa am solo soo xam ne bu ko neexee moom mi jëndoon mu xàcc génn ca njënd ma wala boog kër gi ñu ko jaay day ñàkk na njariñ loo xam ne daana am ci kër yooyu moom nag amu ko mel ne kër yi dañoo baaxoo am teen te mu amul teen mbaa kër yi ñoo baax am teen ndox mu neex moom nag mu am teen boo xam ndox ma daa naqari wala ndox ma daa ngiis wala kër yi dañoo baax am douche te moom amul douche kon moom mu ko jënd bu ko neexee xàcc ci takk-takk nag buñ ko jaayee ñu fekk ci sikk soo xam ne war naa mat ceerub xaymay loolee wala mu ëpp ko maanaam ku xayma loola def ko ñetti xaaj sikk sa nga xam ne moo ca am dana mat benn xaaj ci ñett yooyu mbaa mu ëpp ko moo xam suuf la moo xam leneen la nga jëndoon sañ naa xàcc li ki suuf mbaa kër goo xam ne da koo jënd waaye que mu fay dëkkal day ko bon dëkkandoo bon sikk su réy la ndax bu dee koy sàcc mën na xëy rek sàcc sa alal jëpp mbaa mu xëy rek lakk ko mbaa neneen ak neneen wala bu fekkee suuf sa mbaa kër ga dafa bari ay matt wala ay xorandoom mbaa nga xam ne suuf sa mbaa kër ga dafa gaaf gaaf bi mooy seetlu nañ ne ku fa dëkk rek musiba dal la lañ yàgg seetlu daal mooy ku fa dëkk rek musiba dal la li ki wax ci wala fi fii bay dee suuf soo xam ne seet nañ ne ku ko bay rek dee wala bu fekkee suuf sa mbaa kër ga dafa am ay jinne yu lor lu bari ci barab yi dañu am ay jinne waaye nag bu fekkee jinne yooyu foofu dañuy lor moom te jënd suuf sa mbaa kër ga mën na koo xàcc mu ne ab jaam bu ne man day dañ maa jàppee jaam waaye as góor laa waaye loolu taxul mu am ca benn seere da ko wax rek noonu du tee yoon jàppe ko ab jaam ku ko yore day jàpp ne daal li ma amul ñuy seere rek ay waxam dong la kuñ ne yaa ko moom rek da ngay jàpp ne yor nga ab jaam bu sotti lu ñu sañ ci jaam rek nga sañ ko ca mu ne waaye nag su waxee ne man day dañ maa jàpp jaam di ma jaay nii waaye góor laa te fekk na booba koy jënd nag moomeel ga ñëwagul ci moom ni ki day jënd ab jaam ci foofu day ñetti fan maanaam li fee ñetti fan kay jaay moo gàddu wala day jël ab jaam ci moo waa baxa xëy na mën nga ko tërtër loonte googu nga xam ne daal kiy jënd buñ tolloo ci gàddoogul dara jaam ba daal di wax loolu ne man kat dañ may jaay rek di ma jàppee jaam waaye as góor laa kon ka doon jënd mën naa génn ci jënd ga mën naa xàcc ne man jëndatuma bu fekkoon ne nag jënd ga sotti na ba ñu jàpp ne moomeel gi ñëw na ci ay loxoom moom miy jënd kon bu jaam ba waxee loolu itam du tax mu sañ a xàcc ki jënd jaam bi te jaam bi waxoon ne dañ maa jàppee jaam rek di may jaay waaye man góor laa dañoo teqaloo woon ba ko jaam bi waxee te fekk ñëwagul ci ak moomeelam maanaam ci ak gàddoom ak ba mu ko waxee ci gannaaw ba mu ñëwee ci gàddoom mu ne lu ñu ci mën doon nag moom moom moom su ko dee jaayaat keneen mu xam ne loolu sikk la war na ko leeral kookee ne ko jaam bi ma la jaay kat waxoon na ci awal ma ñoom ne moom góor la du ab jaam loolu moom bu ko dee jaayat keneen rek war a leeral loolu mu la xam mu ne nag kuy jaay jëf ci jëf joo xam ne day tax ku ko ne jàkk defe ne àgg na ci àgguwaay ba ràññu ko na lool ci dañ ko bëggee te fekk demewul noonu lam ci def rek la ku ko jënd ci kaw noonee day mel ne ku sartoon ne dama ci taamu nangam kon bu demewul noonee rek mu sañ a xàcc mu misaale ko nag yooyu jamono bi jaam amee ku jaay ab jaam taqali yére yi daa mel ni daa dëggoone ne jaam bi ab bindkat la wala wala mu jaay ab jaam jox ko xalima maanaam bindukaay mu yore ak ay këyit ak daal lépp li tax ñu jàpp ne ku mën a jàng ku mën a bind la te fekk ne demewul noonu day naxee rek ku jënd jaam ba ci noonee day mel ni daa sartoon ne man kat jaam bi may jënd day mën a jàng mën a bind donte wax ñu ko woon it ne comme jaaykat bay def loolu rek bu jëndkat ba seetloo ne jaam ba mu jënd mënta jàng mënta bind mu daal di am sañ-sañu xàcc dañ ne ku sartoon rek te sart ba amu ca wala kuy jaay ak jur goo xam ne daa toll ñu koy rat mu bàyyi nag batt ba jur bu yàgg-yàgg bañ koo rat ba mu ne jong mel ne ku bari am soow fekk daa bëgg rek ku ko gis defe ne daa baaxoo bari am soow ku ko jënd nag jàpp ne daa baaxoo bari am soow ndeketi demewul noona mu sañ a xàcc kooku nag ak gis moom la ko leeral joxe ca àtte maanaam kuy jaay am jur muy amum soow bàyyi batt ba bañ ko rat jur bu yàgg-yàgg bu batt ba ne jom mu jaay ko ci noonu ci kaw naxi rek yonent bi daa joxe woon ndigalul ku jënd lu amum soow lu mel noonu ñu nax ko ca bu dee xàcc di ko delloo te fekk jot na ko rat day téye soow moom ci rat ba noppi nag delloo jëmm ja joxaale kooka saa tàndarma sax la addis ba wax waaye dañu jàpp ne foofa tàndarma dafa gënoon a bari rek waaye bu dee barab bu ne li ñu ëpp dundee foofa rek na delloo jëmm dem jëndoon delloowaale saa ci la ëpp ci dundub foofee saa na mën nañ ko jàpp ñaari kilo ci tollal bu digg doomu bii nag araam na mu delloo jëmm ja delloowaale soow moom ci rattoon mbaa lu tolloog soow moom ci rattoon mbaa mu delloo jëmm jëri ca bool leneen lu bokkut ak soow ndax ni addis bi indee da ko leeral boo xam ne bu ko dee xàcc di ko delloo na delloo waale saa ci tàndalma ñu ne nag daa fekk tàndalma gën a bari foofu rek ñu ne kon faaw day delloo ab saa ci li ñu ëpp dunde foofee su fekkoon ne jur googu ñu rat ba mu ko jëndee tañ nax ko ca moom xam ne sax dañ ko caa nax ci kañ gaa rat waaye ci dëgg-dëgg li sax muy ko xàcc moom du nax ga ca bari soow maag ñàkk gaa bari soow leneen tax mu di ko xàcc su boobaa kon day xàcc rek delloo jëmm ji waaye du ca delloo waale saa boobee bu fekkee ne itam nax gañ ko nax ca bari soow ma moo ko naqari ba mu di ko xàcc waaye fekkutul mu ratt ko itam day delloo rek jëmm ji waaye du delloo waale saa mu ne bu fekkee ratt na ko ñetti yoon waaye nag ba mu ko rattee benn ba ci ñaar taxutoon mu xam ca ne dañ koo nax ci ne daa bari soow te bariwutum soow kon ba mu jaale ratt ko rattu ñetteel di sax ñu wax ko ne ko suñutoo koo xàcc suñ ko nee nag yow kat ba nga ko rattee rek rattu ñaareel ga xamee woon nga ca ne baaxu te bariwum soow da ngaa bëggoon lii kay ci jënd ga waaye xamewoon nga ca loola mu ne man day rattu ñaareel ga taxutoon ma xam ca loola moo tax ma jàll rattu ko rattu ñetteel kon dañ koy waat loo ne ko waatal ne rattu ñaareel ga xamewoo ci woon ne dañu cee nax waaye lii du mbiram bu waatee rek daal di sañ a xàcc ba tey ragalee waat nag kon du sañ a xàcc ba tey bu ko jaaykat ba ne woon bu nga ko jënd itam xamoon nga ne boo xamut te barim soow ne battam du mel du lu mu bindoo bàyyi guñ ko bàyyi rat moo ko tax mel noonu yow xamoon nga loolu mu ne nag man xaw ma woon loolu maa defoon rek ne mu mel batt bi ne jëm tegtal la ci ak barim soowam dañ ko wax ne ko waatal loolu ne nga mu kii jaay tuumaal na la ci ne xamoon nga ko waatal ne xaw ma ko woon door a sañ a xàcc bu fekkee nag moom wóor nañ ne xamoon na ne lii ñu ko jaay ni battam bi mel du ak barim soow wóor na ko ne dañ koo bàyyi jur bi yàgg dañ ko rat rek waaye moom baxoo te mel nii te teewul mu jënd kon moom du sañoo xàcc loolu nag dañ ko faral di wax di ko leeral mooy kuy jaay ku ne la ngay jaay loo ci xam ci sikk rek war nga koo wax leeral ko kiy jënd leeral gu mat sëkk doo ca bàyyi dara dara lu mu tuuti tuuti bu dee sikk fi ñu mën a wane sax day war a mu wan ko ko ba mu gis ko walla yu jim loxo du ko bëbëstal mooy du ko wax rek wax ñu gàtt ne ko moom day am na wéré bi gu ko dal te leeru wéra diga mbaa moom day am na defoo ci wet wax ñu gàtt woowu du baax loolu mu nëbb ñooye moo bu ne ko rek am na sikk te jotuta leeral sikk sa boo bësal rek bàyyi dañuy jàpp ne kon da koy jaay ci kaw nëbb sikk mu ne itam du mën a wax ne man kat xaw ma ci seen sikk bu la ko si jaay nag moom boo gisee sikk itam doo ma ko sañ a delloo sil doo ko sañ a xàcc loolu yoon du ko nangu yoon day jàpp ne moom bu ci xamul seen sikk itam bu la ko jaayee nga fekk ci sikk rek sañu ñëw xàcc si ko yooyu jamono nga xam ne jaam dafa xewoon nag jaam dong ca la ñuy maye bay xul baraa maanaam jaay ba noppi ne xaw nga ci sikk te dama nangu nga delloo sil ma ko bu dee jaam yooyu jamono daañu nangu bu fekkee ne jaam ba yàgg naa moom te xamu ci benn benn sikk bu ko dee jaay wax ko koy jënd ne ko lu yàgg-yàgg dama nangu nga ma ko delloo sil ci kaw sikk ndax yàgg na fi mante xaw ma ci moom benn sikk waaye lu bokkut ak jaam moom lu mu yàgg-yàgg moom ak doon te xamu ci benn sikk bu ko jaayee rek koo ko fekk ci sikk sañu ñëw xàcc ko li mu ne nag bu jaam ba yàggee fa moom te xamu ci benn sikk am na ñu ne yàggaay ba mooy lu mu néew néew mu nekk ak moom lu mat genn wàllu at mbaa mëpp ko waaye lu yës genn wàllu at moom ak yàgg di lañ koy jàppee mu ne buñ ko jaayalee sikk sikk soo xam ne yoon may na ko mu xàcc waaye laata muy xàcc nag far sikk sa dañ kon bu dee sikk soo xam ne jàpp ni ne mën naa dellu si waat kon bu sañ a xàccati ndax sikk sa taxoon mu nar a xàcc dañ na ba mel ne bu si caa am waaye nag bu dee soo xam ne dañ na waaye mën naa dellu si moom nit ki ay jamono buñ ko dee jaay ab jaam mu gis ca sikkus saw lal mbaa tokkalem saw mbaa saqat su méttee méttee mbaa ndof mbaa ngaana yooyu sikk la yoo xam ne bu demoon ba dañu dem dañ jàpp ne mën naa dellu si du tee rek mën naa xàcc waaye nag bu sikk sa dañee dañ gis ne moom lañ jàpp mooy du dellu si kon du sañ a xàccate ba tey bu fekkee ne dañ ko jaayee doom gis ci sikk ba noppi téewut daa jàll wax mbaa mu def day wane ne sikk soosee bañu ko ca mel ne loola day daaba mu jàll di ko war rek mbaa bu dee oto téewul rek mu di ko war mbaa mu daaba bu ñu jëfandikoo ci xeetu bayeek lu ko nuru mu daal di jàll di ca bayeek liggéeyee mbaa muy ay yére gannaaw ba nga xamee sikk sa mu jàll di ko sol wala dañ ko jaay loolee mu xam ci sikk téewul dafa jàll luyee ko keneen mbaa mu tayle ko keneen loolu lépp dañuy jàpp ne sañu ta xàccati li mu def jëm da koo neex sikk sa di ko caa bañut moo tax kon du sañu xàccati doonte sax dam gisee sikk ra bay tàmbalee wax ak jaaykat ba da koo ne ko gis naa ci sikk ca la jàll daal di def yu mel nii itam dañuy jàpp ne kon daal sikk sa da koo naqariwu rek du sañ a xàcc bu fekkee ne moom mu jëndoon da caa gis sikk di wax nag ka ko jaayoon ci ne ko dama la koy delloo te nag jamono joojee moom delloo ga sotteegut ñu nga ca xuloo ba ne yooyu jamono jëf di mu si jëf joo xam ne du wàññi dara ci jëmm ja ci bu dee kër jamono ñu wax ci xàcc ko mu wéy li ca dëkk dëkk googee du wàññi dara ci kër ga loolu kon bu ko yàqal xàcc ga wala bu doon lu mel ni ab kaamil jamono ñu wax ne da koy xàcc mu di ca jàng ba tey wala bu dee ab téere mu di ca yër ba tey loolu lépp du yàq dara ci xàcc ga dañuy teqale jëf joo xam ne dana wàññi jëmm ja ñuy jaay ak jëf joo xam ne du ca wàññi dara jamono jamuy xuloo ka ko jaayoon ci naa ko dama la koy delloo ñuy waxante bu ca soppandikoo soppandikoo xam ne du ca wàññi dara ci jëmm ja moom du ko yàqal xàcc ga waaye nag ba mu gisee sikk sa digganteem ak mu cee waxante ka ko jaayoon moom bu wéyee di ca jëfandiku rek doonte jëfandiku ba du ca wàññi dara itam dana ko yàqal xàcc ga mel ne mu gis ci téere bi sikk su tax mu nar a xàcc mbaa mu gis ci kër gi sikk su tax mu nar a xàcc laata mu cee wax ak jëmm ja ko ko jaayoon nag naa ko dama koy xàcc daal di cay dëkk mbaa muy ëpp téere mu di ko jàngi loolu moom nekkul jëf ji wàññi jëmm ji waaye ndegam loolu njëkk muy waxante ka ko jaayoon ci xàccam yooyu la ca soppandiku noonu moom dana ko yàqal xàcc ga takk-takk bi mooy liñ ko jaay te am sikk bu fekkee ne laata muy xam sikk sa la ca jëfandiku mbaa mu wut ca njariñ itam du tee rek saa yu gisee sikk sa moom daal di sañ a xàcc amul luñ cey wax gannaaw ba mu xamee sikk sa nag te dutu caa wax ak ka ko jaayoon bu fekkee ne jëfandiku na ca rek du mën a xàccati ndax day wane ni kon da nga ma xam ne sikk si waxu ca dara ak ak ko jaayoon pétéewul mu cee jëfandiku kon sikk sa da ko caa naqariwut su fekkee nag gannaaw ba mu xamee sikk sa ba tàmbalee wax kak ko jaayoon naa ko dama koy xàccam nangam ak nangam ca la jàll jëfandiku ca foofu la ñuy teqalee nag lam ca soppandiku di lu ca mën a wàññi dara ak doon loo xam ne mënu caa wàññi dara bu dee loo xam ne noonu mu ci soppandikoo dana ko wàññi dana ko yàqal xàcc ga bu dee nag loo xam ne nam ca soppandikoo du wàññi dara ci jëmm ja du ko yàqal xàcc ga gannaaw ba nga xamee sikki sa bu fekkee la ko ca tee wax ngànt la mel ne booba daa fekk mu tukki mbaa mu tawat mbaa am borom doole joo xam ne moom la ragal bu mënu caa wax kon lu mu yàgg-yàgg moom bu ngànt la deñee rek mu sañ caa wax mooy mu sañ a taxaw ci xàcc gannaaw bu xamee nag sikki sa ne pat bañ caa wax dara te amul benn ngànt dañuy seet biir bam ne pat waxu ci dara nu mu toll bu fekkee ne yoogiwul sax lu toll ne bis kon bu dee day xàcc itam ñu ne ko sañ nga ko te du jar ngay waat naa noppi gi ma noppi woon bañ a wax du ak jàpp jënd danga matul bis rek moom mooy la aqal la ji dañu nangu ak xàccam te du ca waatante su fekkee ne nag mat na bis jëm ci ñaar bis mu dor ne day xàcc gis na sikk si waxul dara toog lu toll ne bisub lëm ba ñaari fan door wax ne day xàcc nga wax ne faaw nga waat ne diir boobu nga noppi woon ne pat du li nga jënd laa neex naka jekk xàcc nga naroon bu ko waatee rek ñu bàyyi ko ba tey mu xàcc su xamee sikk si nag ne pat lu ëpp ñaari fan moom bu bëgg xàcc itam kenn du ko wuyu doonte nangu naa waatit ne xàcc laa naroon waaye ëpp na ñaari fan moom de su ko déglu ci waxam joojee dañu jàpp ne sikk si ñu wax la ko naqariwutoon rek li mu ne laaka mu saafirin du caageenu ku mel ne aji tukki da koo boole ci ngànt yi bu fekkee ne ba nga xamee sikk sa daa fekkal mu nekk ci tukki ba mënu caa wax ka ko jaayoon moom mu tawatoon ñooyemoo kon loolu ngànt la bu fekkee lañ ko jaayoon day lu ñuy war mel ni oto wala fas mbaa leneen ba mu nekkee ci tukki nag ca la gis sikk sa kon mën na koo war bu dee lu ñuy war ni ko oto na caa dugg bu dee daaba mën na koo war ba ñëw ba ci kër gi daal di koy delloo ka ko ko jaayoon dañu wane ne kenn du ko wax ne ko da nga koy wommat doo ko sañ a war ah kay sañ na koo war sañ na koo war sañ na caa suuf sax doonte sax amul ngànt ci warga mbaa suuf ga itam waaye ci tukki la nekkoon rek loolu sañ na ko wargam ko war mbaa suuf gam ci suuf ngir bu dikkee rek daal di koy xàcc dara du ko ca war waaye nag su dellusee ak loolee ñu gis ne dara si ku ca moom bu ko dee xàcc dara du ko ca war waaye nag bu dee daa ba ci misaal mu daal di yooy lool làpp ndax war gam ko war mbaa suuf gam ci suuf dana ko sañu xàcc sax kon waaye dañuy seet noonu mu ko waree mbaa noonu mu ko sufi dam yooy ñu seet lu tolloog loola bu dee xàcc itam mu fayaale ko jaaykat ba bu ko neexee itam mu far ko téye bañ koo xàcc te ñu seet sikk sa nga xam ne moom la ci fekk ba naran koo xàcc lu mu tolloo ci njëgg rek ñu delloo ko ko koo xam ne moom daaba ji mu jëndoon da caa gi sikk waaye fekkul mu nekk ci tukki moom mu nga fa mu dëkk léegi loolu jamono ba mu gisee sikk sa nekkul këram mu bëgg a dem nag këram te daaba ji neexuta woo mat kon mën na koo war ba këram daaba ji ñu ko jaayoon mu gis ci sikk su ko jaral xàcc te mu nga ca dëkk ba sañ na ko war ba ca kam koy delloo ci dëkk ba doonte sax yomb naa womat doonte sax du kilifa du dara womat ga war na ko yomb du tee rek war rek delloo moom te ca dëkk ba mën na ko mu ne lañ ko jaayoon te jaayale ko ci sikk bu fekkee ne xës na raw ci lu wér a wér mel ne dafa dee mbaa mu laatu mbaa déewul sax mbaa mu laatu ci lu wér waaye bu ñu seet ci àtte moom mook lu raw bu noppi ñooyee moo mel ne bu dee jaam xës na jotoog moom wala gannaawal na ko ne ko su ma deexee gore nga mbaa boog loolee moo xam jaam la moo xam leneen la da koo xubusle def ko ci yoonu yàlla mbaa da koo saraxe mbaa da ko maye maye goo xam ne sakku ca ko ca jox dara bu ñu jaay loo xam ne am na sikk soo xam ne sañ na koo xacc waaye nag laata muy gis sikk sa lu mel ni am na ca raw na bu wér a wér mbaa raw na ci àtte mu ne kon delloo jëmm ja jeex na maanaam mu des te delloo ci jëmm ja delloo ga raw na ndegam delloo gi raw na te dañ ko ci jaayale woon sikk dañ ko wax ne ko nañ seet lu tolloog sikk si ñu delloo la ko ca njëgg ñu koy seet nag mooy dañuy seet loolee bu amutoon sikk sa fu xaymaam war a toll ak bu amee sikk sa fu xaymaam war a toll ñu seet nag la dox ci diggante ba digganteeg ñaari xayma yooyu moom lañ koy delloo ca njëgg mel ne bu ñu xaymaa loolee ne moom day bu amul seen sikk dana war a tolloog fukki junni sikk si ñu ko jaayee la nag moom bu ci nekkee xaymaam war a tolloog juróom-ñetti junni kon la dox ci diggante bi mooy ñaari junni kon dañuy seet njëggam fayoon buñ ko defee juróomi xaaj delloo ko benn xaaj ba ndax boo seetloo ñaari junni mooy xumu fukki junni mu ne bu fekkoon nag lañ ko jaayoon te jaayale ko ci sikk laata muy xam sikk sa da ko yooloo maanaam dugal ko foo xam ne daa mañ ko cay fay ne bu dee jaam mu joxe ko muy liggéey ñu koy fay waaye bu dee machine baa yooyu mu jox ko ko cay liggéey am lu mu ko cay jox mbaa mu able ko mbaa mu tayle ko yu mel noonu nga xam ne taxul jëmm ja génn ak moomeelam waaye nag daa nekk ci waxee keneen ci sabab soo xam ne moo ko waral mu ne dañuy bàyyi ba mu génn ca loolee niki bu dee yooloo ga jërëjëf yooloo ga jeex mbaa bu dee able ga able ga jeex mbaa bu dee tayle ga tayle ga dellu si bu boobaa nag ñu xool ba xam bu fekkee suut ko wut fe na koo xàcc delloo ko nga ko ko jaayoon te jaayale ko ci sikk bu xasee sopp ko nag moom day am àtte boppam ndax mën naa doon sopp ko gu néew mën naa doon sopp ko gu digg doomu mën naa doon sopp goo xam ne yàq na ko yaxeet rawale na ko buuf ci kanam lay leeral bu ci sopp kooku amee li àtte ba ba tey dañ ko jaayoon dara mu am sikk soo xam ne sañ na koo xàcc waaye da koo yéex a yëg ba jaay ko léegi nag kookee kookee mu ko jaay moom di sikk sa daal di ko koy delloo si mbaa da koo jaayoon koo xam ne jotu ko woon a fay kookee nag bari ay bor bañ di ko sisir ñu ne ko nag yow fay la woon te jëmm ji ko jaayoon mi ngi fi bu la neexee jël ko mu daal di koy jël nag te xam nga sikk suñ ko ci jaay la woon moom ba tey mi ngi fi wala yoon moo seet ne moom day lii jaayoon na ko waaye bàyyante ga baaxut yoon xàcc ko daal koy delloo jëmm ja te gis nga ne moom it ñu ngi ko ci jaay la woon sikk yooyu yëpp bu fekkee ne soppi ko rek mën na koo delloo nga ko jëkkoon a jaay bu fekkee soppi ko na nag daañu wax lan mooy soppi ko ak luy atte ba waaye moom daal lu mu jaay jaayal la ci sikk soo xam ne sañes na ko xàcc laata nga xam sikk sa nag nga jaay ko keneen kooka moom gis sikk sa daal di ñëw xàcc ko mbaa da nga koo jaayoon ka nga ko jaayoon fay la woon ñu ko sisir nga fa jëlaat jëmm ja mbaa da nga koo jaayoon yoon ne jaay gi baaxut daal lay delloo jëmm ji yëpp daal àtte ba daal mooy ñu seet ba xam diggante boobu soppi ko na seen déet fekkee soppi ko fi da nga fañ a xàcc ba tey delloo ko yow kala ko jëkkoon na jaay bu soppi ko na nga dégg àtte ba ci kanam ba tey bañ la jaayoon dara mu amee sikk soo xam ne tax na nga fañ a xàcc da nga koo jaay na ba noppi wëlbatiku jëndaat ko ci kookee nga xam ne moom nga ko jaayoon kon moom nga ko moom gu yees ndax da nga ko jaayoon kenn kooku wëlbatiku jaayaat la ko nga moom ko moom gu yees mbaa kooku wëlbatiku may la ko ci misaal mbaa kooku faatu nga doon ko yooyu yëpp kon léegi njëkkoon a jaay te mu am sikku si jël xàcc moomaan nga ko moom bu yees atte bi benn la bu fekkee daal diggante bi sotti ko woo fa mën nga koo xaaj ci delloo ko kala ko jaayoon te jaayale woon la ci sikki soosee bu fekkee daa sopp ko nag da nga dégg atte ba ci kanam dafa jotoon wax lañ lay jaay te jaayaale la ca sikki soo xam ne tax na nga sañ koo xaaj laata ngay xam sikki sa nag ba di ko xaaj mu far génn say loxo ci loo xam ne moom ak neen dong la maanaam dara dikkal la ca nit ki da nga koo may rek mbaa nga def ko ci yoonu yàlla mbaa saraxe mu bëgg a wax nag bu fekkee ne li nga jaayoon te mu am sikki sa yor xaaj génn na say loxo waaye du ci ak neen ñàkkut li la ca jox mel ne kala ko jaayoon moom nga wëlbatiku jaayaat ko ko kooku boo ko dee seet benn nga jaayaate ko ko jëggu tolloo gam la ko jaayoon mbaagu ko yées mbaagu ko ëpp loolu nag moom lay leeral mu njëkk wax nag ci la jaayoon li am sikk boo ko ko jaayaatee ci jëggu toll ni gam la ko jaayoon rek mu ne bu ko jaayaatee ka ko ko jaayoon te jaayi ko ko jëggu yam ak gam ko ko jaayoon mel ne nga jaay ma ab lal mu am sikk su jar xaaj jaaye na ko juróomi junni waaye gisuma sikk sa ba jaayaat la ko ci juróomi junni ma itam kon xam nga ne yaa njëgi ñoo yemoo gannaaw bu ñu xamee sikk si dangay dem rek ma dem ndax boo ko dee seet lal bi nga ma jaayoon dellu si waat na ci yow mayit sama juróomi junni ñëwaat na ci man su ma la ko jaayaate woon nag njëggu ëpp googa ni ki lal bi nga ma jaaye woon juróomi junni moom laa wëlbatiku jaayaat la ko ci juróom ñaari junni kon li ma la ko jaayaate ëpp na ñaari junni la nga ma ko jaaye woon waaye laa fekk na yow ba moo koy jaayit sikk si nekk tam jaral ma ma xàcc xamoon nga ko ba tey da ngay dem rek ma dem ndax nëbb bi nëbb sikk sa bañ ma ko wax mooy tax dagal sablal ñëwaat na ci yow ci doo la ko jaayaatee da ngay téye rek sablal man ma téye juróom ñaari junni nga xam ne kon juróom laa jënde woon bu jëkk waaye léegi yor naa juróom ñaar dañoo seet nag xam nga nga xamoon sikk sa te nëbb ma ko moo tax bi nga ko jëndaatee ci njëg ëpp dal ma ko jaaye woon dal bi ñëwaat na ci yow te doo mën a laaj ñaari junni yooyu nga xam ne moo dox diggante njëgam ma jaaye woon ak li ma la ko jaayaate li ma la jaayaate ëppee na li nga ma jaaye woon ñaari junni waaye da nga caa xamoon sikk nëbbuma ko nëbbuma ko léegi nag sablal ñëwaat na ci yow man nag ma am juróom-ñaari junni bu fekkee nag ba nga may jaay lal ba xamoo woon sikk sa yaa ngi ma jaaye woon juróomi junni ma jaayaatele ko juróom-ñaari junni waaye bii yoon nag moom xamoo woon ci benn sikk li ma ko nëbbu kon da nga sañ a xàcc ma delloo la juróom-ñaari junni waaye may itam yoon damay may ma dellu xàccaat delloo waat la sablal nga delloo ma juróomi junni day wax bu fekkoon ne ba ma lay jaayaat lal ba dama la ko jaayaate ñetti junni te ni ñu waxee woon yaa ngi ma jaay woon lal ba juróomi junni kon li ma la jaayaate mu gën a yomb nag ma jaaye woon gën na ko yombe lu tolloo ñaari junni ndax juróom nga ma jaaye woon ma jaayaate la ñett kon bu sikk si jar xàcc feeñee da ngay téye sablal te delloo ma ñaari junni kon ci takk-takk ku lay jaay yu am sikk su jar xàcc laata ngay xam sikk sa nga wëlbatiku jaayaat ko ko benn nga jaayaate ko ko njëggu yam ak googa mbaagu ko yées mbaagu ko ëpp jot nañoo teqale nag li ca nekk muy atte ba ñi mu ko waxe rek kon da nga loolu ak jaam la ñu mu ko waxe muy rax li xam faqat nga xooli li mu ci teg ne wala mu yaalamaa te yëguñu woon ñoom ñaar bi xëy bi ci sikk sa muy aji atte ji muy aji doon ji ba muy jaay jaam ba ngir faye ko bor boobee xam ci woon sikk di ko nëbbu dañuy seet maslaa ba nga xamee ne aji àtte ji mbaa aji donn ji bu jaay ab jaam ci yooyu jamono ngir fay bor ngir fay borom ku ñu war a fay borom bu dee aji donn ji moom ka faatoo tax moom lañ bëgg a fay borom yow mu jënd nag xamal nga ne kii lay jaay moom àtte ko jurit la wala aji doon la ji jaay ngir fay bor ndegam bam lay jaay xamu ci woon sikk di ko nëbbu doo sañ a xaj dañ koy jàppee bay fu baraa li mu ne raqiqan faqat rek nag ibnul mawaas moom day wax ne du rek jaam waaye leneen loo xam ne aji àtte ja ba aji doon na ji jaay na ko ngir lu mel noonu itam ca la bokk léegi waxoon ci buñ la jaayalee sikk ci sàtti dajee mën nga koo xàcc loolu mooy bu fekkee ne gannaaw ba mu nekkee ci say loxo amul benn sikk bu ko fa dal bu yees waaye bu fekkee ne da nga jënd te fekk ci sikk su tax nga sañ a xàcc ba mu nekkee fi it sikk bu yees da caa am dañuy def sikk si yees soosee ñetti xaaj sikk bu néew néew ñàkk solo di su ko jàppee dara ak sikk bu diggu doomu moom la tàmbalee wax nii moom ak nag sikk boo xam ne lañ ci soxla woon mënatu ci am dañu ko wax nag bu fekkee sikk ba ko dal ci gannaaw ba nga ko jëndee da fekk ci sikk sikk ba ko dal fa yow dafa diggu doomu moom la misaale loola nekkutoon lu yooy waaye léegi dafa yooy lool mbaa gumbawutoon te léegi daa gumba mbaa pattutoon te léegi daa patt mbaa laggi wutoon te léegi daa laggi mbaa paralysé wutoon te léegi daa paralysé waaw bu dee jamono jaam xëyee bu dee jaam bu góor amutoon soxna te léegi am na soxna bu dee jaam bu jigéen amutoon jëkkër te léegi am na jëkkër wala bu fekkee day jaam bu jigéen boo xam ne xiig la woon ak ndaw xiig ga dañ na maanaam ndaw ga dañ na sikk yu mel nii bu ko dalee fi yow di fekk ñu jaayal la ci sikk yaay seet bu la neexee téye ko bañ koo xàcc dañu seet sikk sa nga xam ne moom la na ci jaayale mu war a toll ci njëkk rek ñu delloo la ko lay neexee tam nag xàcc ko ba tey waaye kon dañuy seet sikk si nga xam ne fi yow la ko dale booy xàcc nga delloo waale ko kala jaayoon mu ne dañu xayma loolee bu amutoon benn benn sikk te la ko xaymawaat ci seet bu ci sikk ba la ci jaayalee nekkee fu njëgam di toll dellu seetaat na bu fekkoon ne sikk bu yees bi nga xam ne fi yow la ko dale moom rek moo ci nekk ba tey fu njëgay toll xam ne kon ñetti seet lay doon dañ ko wax mel ne loolu day buñ ko seetee te amul benn sikk war naa jar fukki junni bu seetee nag sikk la ci jaayaale ba tax nga sañ a xàcc ñu ne moom day kon dana war a mën a jar juróom-ñetti junni ñu seet itam sikk ba nga xam ne fiew la ko dale ñu ne ba tey day ñooye moom moom itam day bu ci amee moom dong jëmm ji na war a mën a jar juróom-ñetti junni kon ci kaw misaal moomu ñooye moo képp bu ci nekk xaymaa nañ ko ñaari junni kon bu fekkee dangaa dogu ci xàcc danga koy delloo li mu la jaayoon te joxaale ko ñaari junni muy nga xam ne mooy bayu sikk si ko dale fi yow boo ko dee téye doo ko xàcc nag moom moo lay jox ñaari junni muy sikk si nga xam ne moo la ko ci jaayaale mu ne bu fekkee ne nag ki nga xam ne moo jaayoon loolee nagu na jëlaat la ma jaayoon te du laaj dara nga xam ni sikk si nga xam ne fi yow la ko jotee sax moom nee na loo ma ci jox dara du ma la ci laaj dara delloo ma rek li ma la jaayoon ma delloo sa njëg mu ne su boobaa nag kon doo mën lu muy bu la jaralee nga téye te bañ koo laaj dara bu la jëralum nga delloo ko am njaayam dafa jàll ci wax la bu fekkoon la ñuy jaay la fekk sikk si jël xàcc ba mu nekkee fa yow dafa am sikk su ñàkk ñàkk solo soo xam ne moo ko fa dale mel ni gannaaw ba nga ko jëndee ba fekk ci sikk soosee nga xam ne sañ nga xàcc jëmm ji nga jëndoon dafa am lu xaw a métti tuuti rek lu ko dal waaye métti du woyof la mbaa mu wànneen mbaa ba bay métti mbaa yow dagg mbaa sibul su woyof dal ko mbaa fekk mu doon jéeg yi joteeg moom mbaa fekk mu doon dimo ñu dagg ko ci digg rek sikk yi ñàkk solo yi nga xam ne moo ko dale fa yow moom bu ci amee ba tey bu la neexee xàcc te du wax ne joxal jaaykat bi du tolloo sikk sii ndax soo sikk amul solo waaye nag boo ko dee téye itam doo mën a laaj lu tolloo bayu sikk ba mu la jaayaale booy xàcc xàccal booy téye itam téye waaye booy xàcc dina wax ne la delloo waaneel sikk si nga xam ne fii wala ko dale ndax dafa ñàkk solo moo tax booy téye itam nag dina wax ne faaw jaaykat bi fayal lu tolloo sikk ba mu la ci jaayaale lim ne nag aw ka xam yi sin in dal la sa mooy bu fekkee dalaa jaayoon dinu nga dagg ko ni ñuy daggee mbubb foofu dañuy teqale mu xamoon sikk sa nëbb la ko ak xamutoon sikk sa bu fekkee ne xamoon na sikk sa ci doom la koy jaay kon nañ ko jàppee sikk su woyof nga xam ne doo neexee xàcc te doo ca fay dara bu la neexee itam téye te moom nag du la fay dara ci sikk ba mu la ci jaayaale bu fekkoon ne nag ba mu lay jaay tiise bi xamutoon sikk sa ca nekk yow nag jot nga koo dagg ni ñu daggee mbubb dañuy jàpp ne loolu sikk bu digg doomu la nga xam ne boo ko dee téye moom mu fay la toll sikk bi mu la ci jaayaale boo ko dee xàcc it faaw nga delloo ko sikk soosu nga xam ne yow yaa ko ci def te mooy dagg ko ni ñu daggee mbubb daa àgg nag ci wax bu fekkee li mu la jaaytee mu am sikk su jar nga xàcc ba mu nekkee fa yow dafa am sikk bu ko dal boo xam ne moom yàq na bu àggul ci yàq ko yàqee itam àgg na ci rek la ñu taamoon ca jëmm ja mën a tu caa am mu misaale ko tiisi bi mu la jaayoon amoon na sikk su jar xàcc waaye bu ko jëlee da nga ko daggate daggate boo xam ne yàq na ko yaxeet mel ne da nga ko daggate daggate bu ko nara ñëw ay mbaxana kon fal arshu da ngay dellu mu fay la sikk boobu la ci jaayale waaye doo ko mën a delloo ci jëmm ji parce que bu fekkoon dafa nekkoon lu ndawe dem ba magee nag nga door ci sikk si xàcc ga wees na balay jox lu tollu sikk boobu la jaayale rek wala mu dem ba màggat mu door koo bëgg a delloo jëmm ji delloo ga raw na ñu seet sikk bu mu la jaayee la rek mu fay la ko mooy nag bu fekkoon ne moom mi doon jaay da cee nëbboon sikk soo xam ne day sikk su làqu mënees koo xam ba koo ko jëndee nag far sikk sa nga nëbb moom mi doon jaay moo indi far lim jaayoon yàqu-yàqeet ni ki bëree boroomu ruu mu daal di dee mel ne jamonoy jaam amee mu jaay ak jaam fekk na danaa sàcc mbaa danaa addu kalpe te waxut nag sikk soo see far jaam ba dem di sàcc nag mbaa muy addu kalpe ñu far ko ci rey kon sikk sa nëbboon ca la jëmm jël al ko di ko wax ne ko delloo njëg gi doon jënd day delloo njëg gi lépp nga jëndoon wala sax nga xam ne maa la ko faat moom dogalu yàlla waaye daa tolloo jëmm ji nekkoon ci sikk suñ ci doon nëbbu mel ne jaam boobu nga tudd léegi daan daw te moom bi ñuy jaay waxutoon ne jaam bi day daw ba mu tolloo ci ci daw nag far dogal bi yàlla ñëw mu faatu xam ne kon ci biir sikku su nëbbu ga muy daw ga ca la dogal bi ñëw mu faatu ba tey moom mi doon jaay day delloo njëg ga nga jëndoon bu fekkoon ne nag jaaykat bi nëbbu ci woon benn sikk mbaa nëbboon na sikk bu làq boobu waaye ba loo lay laatu niki ba muy faatu ci dogalub yàlla la te fekkul mu toll woon ci jamono yi sikk sa mel ne ba day jaam bi ba jaam bay faatu moom nekkutoon di daw nëbb na sikk si waaye ba muy faatu moom jaam bi mu nga ci kër ko ku jënd waaye nekkutoon moom ci mu mel ne daw kon dañuy seet rek la tolloog sikk sa jaaykat bi delloo ko jëndkat ba bu jaaykat ba jëndkat bi xëccoo jëndkat ba ne ko sikk si gisuma ko woon kon daay xàcc mbaa gisoon naa ko waaye waxoon naa la ne la neexuma ba daay xàcc jaaykat ba xëccoo moom ne ko gisoon nga ko mbaa naa ba nga ko gisee da ngaa waxoon ne yàqalu la ko mu ne kon dañuy wax ne jëndkat bi moom la ñuy jox dëgg ga bu ko neexee xàcc te du jël sax muy waat mu ne lu may nag ay jaay yi daa wax waxin dëgër a dëgër ne jëndkat bi sikk si nga wax man mii maa la ko woon ba nga teg ci sa bët nga naa gis mu ko maa la ko woon ba nga gis ko mbaa mu ne ko diw moo la ko woon mbaa diw moo la xamal ne la sikk sàngam am na ci lii ma lay jaay di téewal yow nga ne woon yàqalu la ko mbaa mu ne ko diw mu maandoo maandu moo ma xamal ne ma xamoon nga sikk si te itam nee nga woon yàqalu la ko bu fekkee ne jaaykat bi wax ne waxin bu dëgëre noonu moom ba tey jëndkat bi moo moom kàddu ga ci kaw nag mu waat maanaam ba nangoo waat daal ñu jox ko dëgg ba tey waaye waat ko mënu caa ñàkk bu ko nee waatal mu ragal a waat nag ñu ne kon yow jaaykat bi waatal li nga wax su jaaykat ba waatee la mu wax rek jëndkat ba du sañ a xàccati ba tey bu fekkoon ne ki doon jënd ma wax ci làmmiñu boppam ne li mu may jaay day nenn ko woon naa ko bu baax jëllaju ko ceet gu nekk waaye taxutoon nag ma gis sikk sa kon bu dee sikk boo xam ne bu fës la buñ mën a gis ba ñoo nangu li mu wax ne gis toon sikk si waat ga mënu caa ñàkk faaw rek mu waat yooyu jamono bu nit jaayee ab jaam yegul dara jaam ba daw ka ko jënd ne ko dama ko nëbb waaye xamoon nga ne day daw su jaaykat ba ne li mu nekk si man yëpp mës na daw mësumaa xam ci mu ak daw day wax ne jaaykat bi su ma nee waat loolu ne daw daw fi moom xamu ci woon ak daw bu ma nee waat doole ci ñu jox ko dëgg ga ndax sikk yu làq yi moom waxi jaaykat ba lañ cee topp su fekkee mën naa waat boole ca waaye na nga xoolaat baatu kazaalika daa bëgg a wax ne ba nga moomalee jëndkat ba ci ne nga weesoon da nga ne woon lu ne nag jaaykat ba daa wax wax bu dëgër ne ko lii xamoon nga ko waxi waxin woowee fii loolu la bëgg a wax ne bu ñu nee kii jaay moo moom kàddu ga te di jël sax muy waat day fekk nag jëndkat ba waxiwut noonu waxin wu dëgër a dëgër boo ko ci ne ko rek jaam bii ba mu nekkee fi yow daana daw it mu ne ko diw moo ma ko wax te diw moo may di ko maandu baa mu ne ko wóor na ma ne xamoon nga ko te ma ko nëbboon rek wax waxin wu dëgër a dëgër kon moom it balaa moom kàddu ga dana waat ba tey sikk yu làq yooyu ndax ba mu koy jaay ma nga ca am gannaaw bu ko jaayee ba mu nekk fu jëndkat ba la ca door am lu mel noonu ba tey moom miy jaay moom la ñu jiital bu mënee waat jàpp ne moo am dëgg maanaam bu fekkee ne kii jaay daa wax ne sikk làqu si de xawma ko ci woon li mu nekk fan yëpp dalu ko ci moom la ko dalee moom mi jënd ki jënd ne ko xamoon nga ko ci bi mu nekkee fi yow sikki bii nekkoon na ci moom mu ne bu fekkee ne aada aada ci bopp mënta seere waaye ñu xam aada maanaam ñu xam la daa xew démb ñu koy jàkkaarloo di ko gis buñ seere ne li jëndkat bi wax de moom moom la mën a jàpp li mel ni daal moom sikk su yàgg ci jàmm bi xam ne ci di ko ci jëndaale waaye nekkut lu yees lan mën a jàpp su boobaa nag kon jëndkat bi bu waatee rek ñu moomale ko dëgg ga waaye li feet ña xam te topp démb mënuñoo seere loolu ca sikku su làq soosee ci doon jaay bu mu nee waat mooy am dëgg moo xam jaaykat bee moo xam jëndkat bee ko ci xam lam wax ña xam nee nañu ca dëgg-dëgg li mu wax mooy dëgg nattalu woon ko du aajoo muy waat dañ koy fekk ca loola moo xam nag jaaykat ba moo xam jëndkat ba maanaam bu jaaykat bi ne sikk si mu wax de ci moom la ko dalee moom mu jënd waaye dalewu ko fi man bu delloo ci ña xam ñu wax ne amul naa table ne sikk si moom su yees la nekkut su yàgg fi naa dañ ko koo jaayale su yees la ndegam doon nañ ci ay waxam moom li mu wax moom jaaykat bi du aajoo muy waat moom la ñu moomale dëgg ka ne jëndkat bi kon sikk si fi yow la ko dalee ba tey bu fekkee ña xam nee nañu sikk si moom yàgg na ci moom nekkul su yees kon ñoom fekk nañ jëndkat ba ca la wax ndax jëndkat moom daa bëgg wax ne mu ko cee jaayale moom sikk si waaye dalewu ko fi man bu fekkee ñu xam nee nañu ñu wax rek mën a am sikk si moom du si yees kon jëndkat ba moom la ñu jox dëgg ga te du jar muy waat mais nag bu fekkee ne am na ci ko wax loo xam ne buñ ko seetloo moo gën a dëgër waaye mënuñ caa dogu kon moo xam jaaykat ba moo xam jëndkat ba day waat boole ca loola mel ne bu fekkee mënuñoo dogu ci ne sikk si day gannaaw bi ñu ko jëndee la ko dal waaye jot nañ ko kon jaaykat ba bu waatee ne gannaaw bi ñu ko jaayee la ko dal ñu jox ko dëgg ga ba tey ñu xam bu fekkee moom ñu dog waaye jàpp nañ ne sikk bi moom dañ ko ko cee jaayaale ba mu nekkee fa jaaykat bi la ko daloon kon jëndkat bi bu ma newaat boole ca ñu jox ko dëgg ga mu ne bu fekkoon ne la muy jaay bu xawam la maanaam deesu ko natt deesu ko peese deesu ko wàññi ni ki am xar wala rajo wala montar yu mel noonu daal nga xam ne moom nekkul lu ñuy peese ka natt ka wàññi kon mu xawam la te it moom limu nekkul benn ñaar mbaa ñett jëm kaw waaye nekkul lenn te it dañ ko ràññeel ne lii ñooñu rek kii jënd daa bëgg lu mel nangam te xam ne loolu nam mel tey jaay war ko ko wutal day tey lu mu ràññeel ne jëmm yii mu ne loole tey bu ci sikk amee te amul ci yëpp yëpp xam nga nee nga mbirimu la te nag sikk sa dalul ci yëpp daa am rek lu ci am sikk mu ne kon mënees naa seet la ca am sikk mu delloo ko téye la amul sikk te nag ñu seet la mu delloo tam am sikk lu mu tolloo ci njëgg rek mu delloo ko ko nekki mu jaayaan ko fukki tiise am ca nag benn tiise mbaa ñaar boo xam ne dafa am sikk waaye ci des moom amuñu sikk xam tiise moom ñu ràññu ko lañu ne yii muy maa yoonam ji kon dañuy seet benn ba ci sikk mbaa ñaar ci sikk lu mu tolloo ci njëgg nekki bu ñu nee benn bi ci sikk mbaa ñaar ci sikk daal war naa tolloo fukki nit njëgg maanaam boo defoon njëgg yi ñetti xaaj dana ci tolloo benn kon day delloo la am sikk dañu seet na njëgg tolloo ñu delloo ko fukkeel ba loolu nag mooy bu fekkee njëgg dafa nekkoon wurus mbaa xaalis waaye bu fekkee ne njëgg dafa doonoon jenn jëmm ji ne leen mel ne jëmm njëgg dafa nekkoon ak kër mbaa mu nekkoon oto mbaa mu nekkoon aw nag mu nekkoon xaymay jëmm joojee muy kër ga mbaa nagoo mën na ñuy seet lu ci war a delloo jëndkat bi ñu delloo ko ko tam téye la nga xam ne amul sikk ñu ko firee nag ne in lam yekkun de nekkut silxatan di marchandise mën na am tax doo ko dégg dëgg dëgg da nga ko firee rek in lam yekkun de nekkut silxatan di am njaay mu ne lëñ bu fekkee ne njëgg dafa doonoon jëmm ji ne lëñ mbaa ci gàttal nga ne bi an kaana ay nan aw misli yen maanaam njëgg doon rek wurus mbaa xaalis mbaa muy misli li lu ñuy peese mbaa lu ñu natt mbaa lu ñu wàññi loolu jublu bu fekkee ne njëgg dafa doonoon jëmm ji ne leen moo xam ne day tudde marchandise la moo xam leneen la kon dañ koy xayma ci wuru sa xaalis ba noppi nag seet lañ ko war a delloo nga jënd te leen jënd amul ci sikk ñu delloo ko ko ci xayma joojee ma ne bu ne lañ ko jaayoon de la ci sikk buñ ko seetloo war naa tolloo juróomeelu loola kon bu ñu xaymaa jëmm ji ba noppi ba ne xayma ji nangam la toll dañu seet juróomeelu xayma ja moom la ñuy delloo nga jëndoon mel na ci misaal bi nga wax léegi da nga ne woon bu seet la ci sikk day tolloo fukkeelu njëgg kon dañuy xayma oto boobee mbaa kër googee mbaa nag woowee ne xayma ji war naa tollu nangam bu ñu defee xayma ji fukki xaaj nag benn xaaj ba la ñuy delloo ka jëndoon kon nag bu fekkoon ne da ci am sikk ëpp na genn wàll ga léegi wees mooy bu fekkee da ci am sikk yées na genn wàll ga mbaa ca la yem képp di wax nag bu fekkoon ne la ci am sikk moom daa bari bari ba ëpp na genn wàllu ko loola mu ne kon bu fekkee ne moom mi jëndoon ba tey ma nga yore la amul sikk dañ ko wax ne ko delloo lépp la jaayoon tam delloo la lépp sa njëkk bu fekkoon ne nag la ci sikk moom ëpp na genn wàll ga ni ci boo ko defoon ñetti xaaj ñaari xaaj yépp dafa am sikk waaye benn xaaj boobu nga xam ne moo amul sikk itam jënd na loxol ci ko jëndoon ni ki loolee nga xam ne amul sikk jot na ko maye ba dem na mënatu caa jot kon ba léegi mën naa jàpp ne loolee mu maye ba tey rek ak moomee la ma maye na ko ba noppi ñu seet nag la nga xam ne moo amul sikk ñu delloo ko ci njëgg nga xool li ñuy wax ne bu fekkee la ci sikk ëpp na genn wàll ga du mën a téye la des te sikkut lañ bëgg a wax mooy du mën a téye lu néew la des te sikkut ngir ñu seet lañ ko war a delloo ci la am sikk nde moom bu nangoo téye la des te sikkut te kenn bañ koo delloo dara dara xam ne kon day téye loolu rek te muñ dara nekku cee dagan na maanaam benn ci yàlla loo xam ne rek mënuñoo tàggoo mel ne benn peeru dàll ñaari dàll wala ay bot nga xam ne ñaari bot yi ñooy ànd wala sax bu dee ñaari lam yoo xam ne li ci ëpp fu leen di takk day takk ab lam ci loxo bee takkat ab lam fële mu yaar yoo xam ne daal duñ mën a doyloo kenn ka bàyyi ko ca des faaw yaar yëpp la ñuy boole su benn ba xasi sikk du gën a téye benn ba baax ñu koy delloo ci njëkk lu tolloo benn ba sikk am na nag ñu wax ne suñ ca bokkee juboo kay jaay kay jënd dara nekku ci ndax ndegam moom bu dee yaari daal yi yenn daal woo moo baax waaye kooku nangu na koo téye te seet nag weneen wu mu ko mën a booleel buñ ci amee déggoo daal am nañu ne dara nekku ci am nañu te jamono daam dafa xewoon bu fekkoon nañ ko jaayoon ndey ak doom ñu di ay jaam benn ba am sikk du mën a delloo rek ba am sikk ci ndey ja mbaa doom ja téye ba ca des fekkee agul ci ñu mën leen a tàggale mu jënd leen ñoom ñaar nag kenn ka sikk mu jënd leen ñoom ñaar nag kenn ka sikk du mën a téye benn ba di delloo ba sikk am nañ ko koy jaay benn yoon waaye du la ñuy peese mbaa natt mbaa waññi mu xawam la te it dafa lii mu ëpp na benn moom te it dañ ko ràññeel ne lii du rek lu ñu melal di wax na mel dañ ko ràññeel ni mooy yii su fekkee amu ci lu am sikk waaye daa am ku wax ne nangam maa ko ci moom ñu seet ni loolee mu wax kat mooy la ci ëpp maanaam ëpp na genn wàll ga bu doon ñetti xaaj am na ku wax ne maa moom ñaari xaaj ñi te yoon nangu na ne wax na dëgg kon moom mu jëndoon du mën a téye loolee nga xam ne moo des te gën a néew ngir ñu delloo ko lu tolloog dañ ko war a delloo ci njëgg yu may nag nga xam ne loolee des te gën a néew fas na génn ay loxoom fas yi génn ay loxoom moom mën na koo téye mu bokk ci moomeelam doon fekk ko jaayoon war koo delloo na ci njëgg lu tolloo loolee nga xam ne am na ko ci yàpp wax ne maa ko moom ba yoon ne ko wax nga dëgg nga xam ne kon bañ ko jaayee lu demee nii am ko wax ne maa ci moom nangam mook bañ ko jaayee lu demee nii mu am sikk soosee ñoo bokk àtte ci anam yëpp yëpp moo tax fara ba tey it gi nga xam ne lañ ko jaayoon daa am ko ca daq ca lenn la ne maa ko moom te loola ëpp lam ne moo ko moom moo ca ëpp ba la ci gën a néew moo des ñu ne ko da ngay delloo li gën a néew waaye njaay ma du mën a wéy ba tey bu nangoo téye loolee des te bañ koo joxaat dara nga xam ne ba tey loolu baax na su mënul loolu nag li ñu wax rek day xàcc lépp mooy ka ko jaayoon da koy delloo lépp njëggam ko joxoon moom nag mu delloo ko li nga xam ne moo des ci la ko jaayoon ndax la ci des am na ko ci taq ci yoon ba yónnee ko wax nga dëgg yaa ko moom ku jënd loo xam ne day lu ñuy peese mbaa natt mbaa wàññi mbaa boog day mu xawoon lu ñuy xayma li mu ne itam di mu tax a didd waaye nag nekkut moo xay yan day maw suuf léegi bu dee tissu dañuy wax ne lañ koy jaay daal ay tissu loo xam ne nangam lay mel te xam nañ ko mu am ca marché ba waaye nekkul jëmmi tissu yi ñu tiim ne mooy jëmmi tissu yi nekkul moo xay yan lu ñu ràññee lu ñuy melal rek la lu mel nii moom bu amee lu ci sikk moo xam néew na moo xam bari na njaay ma day wéy ñu seet la nga xam ne moo sikkut mu téye ko jaaykat ba daal di koy mottali lu tolloog loola bu dee dañuy peese mbaanat mbaaw ñi ci misaal muy bërigo am ca fukki kilo yoo xam ne daa am sikk kon ki jëndoon day téye lu sikkut te kiy jaay jox ko nag fukki kilo yoo xam ne moom amul sikk bu doon yére itam am ci ñaar yu am defo waaye mooy suuf rek la day téye lu sikkut ñu seet la ci sikk kiy jaay andil ko mën a toll bu fekkoon ne it bañ ko jaayee lu demee nii daa am ko ca takk wax ni nangam day maa ko ci moom ba yoon ne ko wax nga dëgg ba tey atte bi benn la loolee mu ne moo ko ca moom ba yoon ne ko wax nga dëgg moo xam mooy la gën a néew mbaa daa tollu la def mbaa da ko ëpp ci jëndoon day téye rek da ko jaayoon seet nag lu tolloog la mu ko war a joxaat mu joxaat ko ko mu des nag li ma ta wax mooy bu fekkee lañ ko jaayoon nekkut lu limu day benn dong di ko bu dee kër genn kër la bu dee fas benn fas la bu dee oto benn oto la boo amee ko ci taq day wax ne maa ci moom nàngam moom ma lépp waaye maa ci moom nàngam dana am jàppandi moom i jëndoon mooy seet bu ko neex bu ko neexee xàcc bu ko neexee bañ a xàcc te yéen jënd ga day misaal ñu waxoon ne ca lañ jëflantee moo xam ci njëgg la moo xam ca lañ jaay la bu amee ko ci taq ba wax ne lu ci ëpp moo ko moom ci yoon ba yoone ko jëlal dañuy dindi jëflante ga faaw day deñ loolay misaal ci bu fekkoon ne la ñuy jaay moom benn tiisi la njëgg nag moo doon ñaari dërëm ak leneen loo xam ne moom xeetu lu ñuy jaay la waaye du wurus du xaalis dama ne nag loolee kat bu seetee xaymaam war naa tolloog fukki dërëm day mel ne kon tiisi bi ñuy jaay dañ koy jaayee ci fukki dërëm ak ñaar ndax ne kon xaalis bi ñaar dërëm la la du xaalis ci njëgg xaymaam tolloog fukk kon mel noonu rek njëg gi moom fukki dërëm ak ñaar la tiisi bi nag mooy la ñuy jaay bu ne bu fekkoon ne daa am ku taq ca la ànd ak ñaar dërëm ña kañ xaymaa ko fukk wax ne maa ko moom ci yoon ba yoon ne ko jëlal kon xam nga ne njëg gi moom lu ci ëpp am na ko ca taq ci yoon ba ne moo ko moom ba yoon ne ko jëlal mu ne kon faaw jëflante ga day yàqu bu fekkoon ne yére baa nga fa dañuy delloo yére bi ka ko doon jaay mu delloo ñaari dërëm ña ndax la ànd ak ñaar dërëm ña am na ko ci taq ne moo ko moom ci yoon ba yóbbu ko kon li des moo gën a néew mu ñaar dërëm na delloo ka doon jënd ñaar dërëm ña te ndegam tiise baa ngi fi ñu delloo ko tiise ba mu ne nag bu fekkoon ne tiise ba dafa raw ni ki lakk na mbaa daal leen xew na ca dañuy xayma tiise ba rek fu xaymaam toll dëgg loolu la ñuy ameel ka doon jaay tiise ba waaye moom faaw mu delloo ñaari dërëm ya bu fekkee ne ñaar dañoo bokk jënd dara ñu gis ca sikk soo xam ne sañ nañ koo xàcc kenn ka mën na ne man sama wàll daa koy xàcc kenn ka ne man duma ci xàccante xam ne kon ñoom ñaar amoon sañ-sañu bokk xàcc waaye kenn ki mu ne du xàcc kenn ki di xàcc ku nekk dañ lay bàyyi ci la nga wax loolu mooy ñooy jaay dañoo limu mel ne mat ñaar ci jënd nag moom nekk kenn boo koy jënd nag bu gisee ca lam jënd lu jar mu xàcc man naa wax kenn ka ci ñuy jaay ne ko yow damay xàcc ak yow yow ñu néew duma xàcc ak yow bu fekkee ne dañoo delloo njaay ma ngir sikk xàcc waaye nag laata ko jëndkat bi delloo di ko xàcc jot na caa am lum ca jariñoo kon nag mu xamutoon dara ca sikk sa lam cote jariñoo ba kera mu koy xàcc lew na ko kenn du ko topp lu may nag yi mu wax moom faaw da koy delloo mooy gannaaw ba mu jëndee bu loola juree am doom mbaa bu dee ay garab ba mu koy jënd fekk na mu am meññet mu ñu góoral mbaa bu dee ay gàtt ni ki ay xar fekk na mu am kawar goo xam ne mat na sëkk ñu mën koo xuuf yii moom bu dee xàcc lam jëndoon da koy delloo jaaykat bu waaye du ko mën a téye bu dee doom bu dee xàcc jëmm ja day delloo waale doom ja bu dee garab te amoon meññet mu ñu góoral day delloo waale meññet ma bu dee gàtt mu amoon kawar gu mat bu ñu mën a xuuf da koy delloo waale dab mooy boobu kekkeen suuf baal yu taq ci suuf sédduwu leen ko mu jekki-jekki jaay wàllam mën ngaa dab ko jënd loolee delloo ko njëkk yow daal di moom lépp koo ki nga xam ne moo jëndoon wàll googee nag fekkee jotoon na caa jariñu boo ko dabee itam ba delloo ko njëgg du tax nga laaj ko lam ca jariñoo woon istiqaaq moom mooy am ko yor dara keneen di ko taq ci ne moo ko moom ci yoon li seet ko ci yoon ne ko wax nga dëgg fekk moom la ko jot la woon du njublan da ko yoroon daal lam ko yore woon du njublan kon lam ci jot a jariñoo itam kenn du ko ko laaj si si nag mooy dañoo jaayoon jëmm ji dara te jëptoon a fay boor ya bari nag bañ di ko sisir kooku ko jaayoon wax ne kon day jëlaat rek li ma ko jaayoon ndegam bu fekkee ka jëndoon noonee bañ di ko sisir defoon na caa jariñu lam si jariñoo kenn du ko ko fayloo yàqu jaay nag mooy yoon daa seet ne njaay mi baaxut ba kon day delloo jëmmi njaay mi ka ko jaayoon delloo njëgg ka jëndoon bu fekkee ne ka jëndoon jotoon caa jariñu lam ci jote jariñoo kenn du ko ko fayloo njaay mi nga xam daa am sikk ba ka ko jënd di ko xàcc su fekkee ne ka ko ko jaayoon nangu naa jekki-jekki rek jëlaat am jaayam ndax xam na ne moom sikk si am na bu xasee nangoo jëlaat la mu ko jaayoon rek di jàpp ne njaay ma des na ci moomeelam nga xam ne la ca xew gannaaw ba rek ngaañam lay doon bu amee sikkoo bu dee lay dee dee ndegam moom nangu na li mu jaayoon am na sikk ki jëndoon nee damay xàcc te moom nangu na ak xàccam rek lam jaayoon daal lu ñëwaat ci moomeelam lu ca xew rek moom la ca xewal mbaa boog àttekat bi ci boppam moo seet bu wóor ko ne njaay mii am na sikk te kii ko jënd sañ na koo xàcc lu leer la fi moom ndax ki jaay ci boppam moo nangu ne li ma ko jaayoon am na sikk si mbaa ay seere ñoo ko seere kon doon sa ci tuuti àtte ne xàcc naa njaay mi delloo ko borom njaay ma dal nay dellu ci ka ko jaayoon maanaam moomeel ko dal nay dellu ci ka jaayoon nga xam ne te mën di xew rek ngaañam lay doon la ñuy jaay bu amee tur woo xam ne bi ko waxee day ëmb lu yaatoo yaatu ca xeet woowa am nag tur woo xam ne moom la jagoo moo koy ràññeel kay jaay nag tudd rek tur woo nga xam ne moo matale wàll yëpp bañ a tudd la nga xam ne mooy turam dëgg-dëgg mu mën koo ràññeel su fekkee ne moom mooy jaay noonu la waxee di jaayee njëg gu jaaduwut it maanaam gu néew boo fii ngaañam lay doon koy jënd itam bu déggee noonu ñu ko waxee bu daal di koy jënd jënd ko njëg gu seer it ngaañam lay doon mel ne wur sa xaay fi ci nekk daañu ko tuddee aw doj xajar wax naa sax yàlla mooy yëkkat ci daraja yi ñaar doj yi te mooy wurus ak xaalis rafaxa xadaral xajaray ni jublu ci ab zahaba wal fidda kon kii jaay bu ne maa ngi jaay xeer wii tudde ko aw doj fekk mu wurusu foor dal koy jaay njëg boo xam néew na ca lool kon loola moom rek lay doon ngaañam moom aji sabaan ba it noonu la fekkee lam tudd ne moom lay jaay lam ko tudde def na ko ca wax ci biñ ko dee tudd am ko jàpp ndey lu foor a foor jënde ko njëg gu seer seer di ki téye moom sore nag loola li war waroon naa yomb la watoon seer ba tey kon moom mi jënd ngaañam lay doon bu fekkoon ne nag la muy jaay da ko tudde lu bokkut ak aw turam am ko dégg nam ko tudde daal di koy jënd ci kaw noona li ko téye moom du moom kon dana sañ a xàcc boo réer ba tey bee la weesoon nga xam ne lañu tuddee la ñuy jaay aw turam daa agul ci ràññal ko rek ñu waxoon ne bu ci ngaañ amee ci jaay ga mbaa jënd ga ka ngaañ la dal rek day muñ day fekk kay jaay moom la muy jaay waaye bu fekkee dañ koo délégué di ko jaayloo dong moom ka ko délégué woon mën nañu xàcc njaay ma ba tey kay jaay buñ ko naxee ba mu jaayee loo xam ne néew na lool ca la muy jaay mbaa kay jënd ñu nax ko ba mu jënde loo xam ne ëpp na lool ci dañ ko war a jënde kuñ ci mën doon rek ngaañam lay doon ndegam moom jaay waxaali kese la mooy lii daal dañ koy jaay waxaali ba juboo rek kay jaay daal buñ ko naxee ba mu jaayee lu néew néew ah lu yées lool lañ baaxoo jaayee ngaañam la kay jënd it noonu bu jëndee lu ëpp jëdañ ko war a jënd it ngaañam la lu may nag kañu nax laata muy jaay mbaa laata muy jënd wax na ko ñu jëflanteel ne ko lii dee daa koo umpale ma bëgg nag nga jëflanteeg man li ngay jëflanteeg nit ñi ci aw yoon rek mel ne mu ne ko lii daa ko bëgg jënd waaye dama ko umpale ma bëgg nga jaayee ma li ngay jaay rek nit ñi mu jaadu mbaa mu ne ko lii dama koy jaay waaye xaw ma nag lu muy jar fii mu bëgg nag nga jënde ko njëg goo xam ne moo ci jaadu moom lañ ko baaxoo jënde fii ku foofu xamle boppam noonu wax umpaleem buñ ko naxee moom dana sañ a xàcc te loolu moom ñëpp dañ cee dogu na borom moo sasal waxe day mel ne dañ caa amul déng-déngi waaye ca dëgg-dëgg amul ak déng-déngi dañ caa dajee dëppoo ca fa ñu wutee kay mooy kañu nax daa umpale woon loola rek te jëktoon a xamle ne lii kat umpale naa ko bañ xam ne koo umpale koo kay ca la ñu wute ba xam la ñu waxoon rek day muñ waaye kenn du ko delloo dara nax nañ ko nax nañ ko rek wala déet foofu la wute ba nekk ki nga xam ne moom mooy jënd baa mooy jaay xam ne bu wér ne lii jaarul te teewul mu nangu ko te mu ngi ànd ak sagoom wala moom gannaaw bi ci bëggee wax itam kenn du ko déglu kañu nax nax bu jaaruwut moo xam ca bu muy jaay la moo xam ca bu muy jënd la gën a wër mooy bu ca ñett saat ci dajee dana mën a xàcc génn ca jaay ma mbaa ca njënd ma moo lañ ko nax mat na ceer ba mbaa mu ëpp ko te it ubbali gu ubbale woon moo tax ñu nax ko te it daaw na caa taxaw fi saa su jënti ko mbaa lu mu yéex yéex ëppul at te jamono jaam dafa xewoon am na ñu tuddee wax dëgg salaas wax day ñetti fan loolu mooy kii jënd wax ne dama jënd jaam bi waaye li seen ñetti fan moom lu ci xew du ma ko gàddu yow nga xam ne yaay jaay yaa koy gàddu su boobaa nag kon diirum ñetti fan ne lu ci xew rek muy faatu mu leneen di beneen sikk ka nga xam ne moo doon jaay rek moo koy gàddu waaye ak jënd ji gàddoogul dara lu may nag ñu ne li seen ñetti fan lu ci mën di xew yow mi jaay yaa ko gàddu ba mu des nangam am sikk bu ñu seetee ne moom bu ci amee itam ak jënd ji moo koy gàddu kon boobee nga xam ne moom lañ seetee moom lañ génn ràññeel ko moom du ca amee ak jënd ca du sañ a génn ca jënd ga diiru ñetti fan nag kii jaay moo war a dundal jaam boobee ndax kii jënd moomagu ko ba tey nag buñ gaañee jaam ba ci misaal am lañ ca war a fay ndax gaañ lañ ko gaañ ba tey jaaykat baa ko moom ak jënd ja du ko moom su fekkee ne tey jaay daa waxoon kii jënd ne ko dama lay jaay jaam bi waaye alalam moom bokk ci daa koy téye ñu àpp itam diirub ñett fan ñooñu ci wax dëgg salaas bi nga dégg ndegam kiy jaay wax na ne alal ji bokk ci kon diirub ñett fan yi lu mu fa may jaam boobee moom miy jaay moo ko moom aj aj jënd ja du ko moom bu fekkee ne leeratoon ne alalam bokk ci fa jaay rek jaam ba noonu kon diirub ñett fan ñooñu lu ca jaam ba am ci alal ji ñu ko may itam aj jënd ji moo koy moom jamono yi jaam xëyee daanañ jaay jaam di ca tudd mu day at su boobaa nag dañuy wax ne ko li fekk at mi mat wet yi lu ca mën di xew muy ngaana mbaa siti mbaa ndof kay jaay moo koy gàddu waaye kiy jënd moom gàddoogul dara ci yett yooyu waaye nag ndof ga moom bu dee ndof goo xam ne daa am saw suuf saahire mel ne dañ koo dóor rek mu daal di tëlbati mbaa lu mel ne accident moo ko dal rek mu mel ne ku tëlbati ndox gu mel noonu moom du tax aj jënd ja mën a xàcc ndox goo xam ne daal daa jekki-jekki dal ko mel ne jinne moo ko sadd moo siti bi ak ngaana gi ñoo ci yemoo li fekk at mi mat rek lu ci xew rek moom ma doon jënd mën naa génn ca jënd ga yaari xuuday yi nag xuuday ñetti fan ak xuuday at moom balaa mën a am kay jaay kay jënd dañ koo sart mbaa ñu baaxoo ko def foofee waaye bu fekkee waxuñ ca ba jubóo di ak sart baaxoowuñ ko def foofa kon ku jënd itam bu ca bara xewet ñetti fan ñu mbaati at ma it du tax nga sañ a xàcc jàpp ne loola yow mi jënd sa ngaañ lay doon muy xuuday ñetti fan muy xuuday at ñoo ci yemoo bu fekkee ne laata diw bay jeex ka jëndoon goreel na ko kon wax daja jeex na amatut wala mu ne ko gannaawal naa la su ma deexee gore nga ba tey wax daja daal nay jeex dara nekkatu fa diirub ñetti fan ñooy jeex mbaa diirub at may jeex bu koy jënd waxee jaaykat bu ne ko wàcce naa la gàddu gi nga xam ne moom nga gàddu woon li xew ci jaam bi xam nga ak jënd ji moom wax dëgg ji moom la amaloon njëriñ ndax lu ca xew mu sañ a jënd ca jënd ga léegi nag bu ne jaaykat bi wàcce naa la li nga ci gàddu woon te fekk na bu dee ñetti fan ña matagut ba bu dee at ma atama matagut kon ka doon jaay moom gàddootul dara mu aji jënd ji dal nay gàddu lépp li ca mën di xew itam du tax mu sañ a xacc mu mu dee ñetti fan mu mu dee at la wax ne dañ ko waxantee ba juboo dañ koy tàmbalee ci bis ba ca topp dañ koo tàmbalee ci bis boobee ñuy waxee ba juboo waaye daa mel ni faraabe moom daa wax ne su fekkee day gannaaw fajar la ñu wax ne kenn doo ñëwaale bis boobu waaye bu fekkee ci guddi ga la njëkk fajar di fenk moom dañoo ñëwaale bis boobee